kon ma fëgg daal di wax rek eh, salaamaaleykum waa kii du ndaanaan. Ah, salaam. mais yow namm naa la. sama xarit maa la fuuf. yaa ngi ci bu wér. Eh, bu leen gisee lii ngeen xam ne li nga xam ne rek mooy eh, Bala Mansa Sañse nekk fii ci pikin tali bu mag nekk rek dend ak jaaykatu ginaar yi mu nekk nag marché Zing doon fi nga xam ne nag Bala Mansa Sañse boo leen ko déggee dama naan seen fit danaan rëf ah. ndax lépp li nga xam ne rek ci sañse fii lañ koy fekke xàmmee ngeen ko muy ndaanaan bi Ndiouga Thiam nuyu naa la bu baax chéri Lota. di la fay sama xarit soxna Sonia di la wax ni dalatil jàmm fii ci bala mañ sa se comme niñ koy defee rek euh, xam naa ni instant bi may waxeeg ak yow kër yi ñi ci saal yi ñi ngi woowante mhm. ah ñi ci ëtt yi aussi ñi ngi daw ñi taalu seen télé nañ taal seen télé <laughs> donc te fas yéenee xam ne tey ngeen gis loo xamante ni ci wàllu tissu gëj ngeen koo gis ba ma gëjee ci table yaa ngoone Euh, kon nag euh, di wax ne gis ngeen li nga xam ne rek fii la ma génn muy jesner bu toog def ko jupp rek daal di koy def toog tay baas kon nag bala mañ sa sañse la ñuy wax ci wàllu tissu waaye tamit ci wàllu ñaw kon nag euh, njuga dañ ciy dem de léegi léegi. dañuy dem bu sës ci rek. gis ngeen samay dàll. gis ngeen samay accessoire gis ngeen sama taille lépp nag bala mañ sa sañse la ak bala mañ sa couture ma bàyyi la rek euh, nga tegal ñu li nga xam ne rek moom ngay teg ci table ji directement ndax dama naan moom fi ne nii bu ñu xasee ba yegg si moom commentaire bi day daal di rek doon lu néew dañuy daal di wane ngeen gis kon waaw li waral sax euh, ñu defal la lii parce que buñ nee bala mañ sa sañse buñ yemee ci tissu kese sañse bi du complet parce que bala mañ sa sañse lañ wax sañ sa day général donc euh, dàll ak pochette ci sañse la bokk takkaay ci sañse la bokk la bokk ndax boo amee ñawuñu ko sa sañse du du mën a mat kon nag euh, macha allah fii ci bala mañ sa sañse dañoo dajale loolu lépp tegal leen ko sur le plat boo egsee fii nag ci magasin bi du jar ngay dem fenn xam ni fii la liir bi di juddoo te fii lañ koy tuddee maanaam fii la tissu yi di njëkk a génnee tey ngeen di gis loo xam ne tey ngeen koy njëkk a gis. ci wàllu tissu ngénte boobu kañ lay doon. maa ngi lay woon lu bees loo xamante ni liir bu juddu la muy organza jipir yaakaar naa ni Sénégal kenn mësagu sa kenn mësagu la gis organza bu ñu patché ak jipir. soo ñaa teg ko say tànk tàllalal na ko réew mi xool lii mooy organza jipir lii maa ngi ko créé cib dëkk daal di jéggiwaat yeneen frontière demaat cib dëkk ñu perlee ko fa. donc ñaari matière la yoo xam ni bokkuñu dëkk bu ñu jugee moo tax day raar doo ko gis ci marché bi man maa la koy garantil fii rek nga koy gisee rouge mi ngi nii donc bëri danger danger bi tubaab bi dafa teragal ko seen naa ko fi ah rouge ngi nii aussi mhm. soxna Sonia nii donc euh, organza jipir lu bees la <laughs> lii mooy til basket donc lii lu bees la aussi yaa ngi koy soog a gis sur le plan national ah. donc til basket bi dama la ci won ay couleur waaw international lay doon donc national ah. lañ ko njëkk a wone donc day international sax parce que TFM moom dafa international macha allah donc noir a ngi nii lii ma lay won euh, moo tudd Candy Crush <laughs> Candy Crush. Candy Crush bi bi bi bi bi bi lëmbee jamono. merci léegi dafa am tissu bu bees. Candy bu ma bu ma tuddee Candy Crush. Ah. moo nekk nii donc lii waaw lii xam nga mosoo ko gis fenn. am na am na ak cat. non lii moom macha allah ah. lu bees la amagul fenn fii rek ngay ñëw gis ko fi fii ci bala mañ sa sañse waaw c'est-à-dire yi macha allah comme ni xale di wax naan tubaabe couleur yi ay couleur yi tubaabe la. til bi mooy til Jàmba Jóob strage. Jàmba Jóob waaw noonu la noonu la euh, demee. te da moderne ah da ngay jël ci suñu maam daal di booleek moderne bi. daal di koy duppee saytu si. waaw mais noonu la muy wane rek ne démb xamal waral loolu man maay dem mhm. fekk nit ñu weex ñi ñu jël seen xalaat. boole kook sama xalaat moo tax ñoom damay jël ci ñoom jël ci man daal koy boole c'est normal waali ay genre xeetu til yu bees la yoo xamante ni fii lañ ko créer maanaam fii la liir bi juddoo te fii lañ ko tuddee <laughs> wedding wedding wedding boo ko déggee mooy marié ci anglais design bu bees la boo xamante ni création bu bees la pour xale yi nga xam ne ñi ngi waajal seeni i jàkkaarloo ak ñi waajal seeni i takk comme ni ko xale di waxee takku jàkka yes all is for the wedding lu mu nam ah nii mi ngi nii lii nag xanaa nag njuga nag waaw nag nag nag nag fii la fii fii la fii la liir bi di juddoo de te fii lañ koy tuddee ah, ah waaw mais nii la nii la demee ah. yow nga sañse rek sa finition daal di tombe ñëw def say dàll bala mañ sa sañse xoolal lii rek xoolal ma lii <laughs> lu dara du ko éteint li mooy til making by hand making by hand c'est-à-dire c'est fait à lii fait main la boo ko xoolee lépp loxo lañ ko liggéey doore champagne champagne champagne moom ban xeet la ci couleur champagne yéen yéen xale yi may laaj rek ndax xale yi dinañu fooyee ay couleur champagne ndax xale yi xale yi yi di ay connaisseurs xam nañ li may wax bu ah. baax ñoom sañse ci la ñuy dox. dama lay indil benn jippir bu bees bu tuddi jipir tempérane ci tempérane laa xool gis yoon bi ni muy dawee ci jeu bi ma ne pourquoi pas ma créer tissu boo xamante ni day mel noonu donc ci la inspiré woo créer jipir tempérane mi ngi nii gis nga orange aussi mi ngi nii donc bëri na ay couleur jipir tempérane mi ngi nii créé naa ci seddaay bi benn velours velours pick mi ngi nii en doré noir Ah, ah, mi ngi nii waaw gis nga lii day stressé gis nga ko mi ngi nii waaw mi ngi nii day taweeku donc lii moom pour say robe ak say bagage yooyu noonu donc bëri na ay couleur quoi dafa am beneen boo xamante ne waaw boo xam ne dégradé la tudd lu bees la aussi donc pour ay robe yooyu noonu nga koy ñëw ak leneen lu la neex ah donc yëpp tamit nag euh, si kanam tuuti di ngeen ci gis ay modèle robe yu ñu ci def yu baax waa bii am na robe bu ñu ci def boo xamante ni robe bu rafet la li genre perforé dentelle décalé la gis nga ko donc mi ngi nii ñu cristalliser ko ba mu fees donc euh, mu rafet lool macha allah def couleur unique bu dugal ay fil doore ak cristal argentin arc-en-ciel bi mi ngi nii gis nga ko donc bëri na ay couleur quoi pour jàkkaarloo yi ak mariage yi mhm. donc. Euh, char yi nekk waaw moom finition moom dafa rafet sax. waaw chari dafa doy waar yow chari beneen affaire la gis nga chari cristallisé pur ah donc yoo xam ne ay design yu bees la yoo xam ni fii lañ ko créé fii ci bala mani sa sañ sa doo ko gis feneen donc mi ngi nii lii lépp la man donc lépp lañ ci def donc am na ay couleur am moom donc wan la bleu bic lii somo la. waaw somo bi moo nekk nii. Ndiouga lii nag lii ëpp na de. lii def. mais lii mooy microfine dégradé. mi ngi nii kon fii la liir bi di juddoo te fii lañ koy tuddee. leer na wala leerul. waaw noonu la liggéey rek soxna si waaw parce que tamit <laughs> expérience li lay jariñ dak chaque jour ah, ñun dañuy innover di génnee lu bees di créer lu bees lii mooy microfine donc micro waaw mi ngi nii til microfine dégradé bi gis nga ko ni lii beneen affaire la boo xamante ni donc ama amagul Sénégal donc liir bi fii la juddoo ci bala mañ sa sañse euh, te fii lañ ko tuddee maanaam lii euh, mën naa leen ko garanti ni leen fii ak un an mhm. donc doo ko gisagum Sénégal. seenati naa couleur seenati naa couleur. muy lan vert blanc. Euh, fii la liir bi di juddoo te fii lañ koy tuddee. maanaam li ma bëgg a wax foofu mooy fii la ñuy créer tissu bi te fii ngeen di déggee tur bi. waaw loolu laa bëgg a expliquer foofu daal mi ngi nii gis nga ko donc euh, yëpp yu bees la. gis nga dañ koy boole rouge. Ah, mi ngi nii lii microfine yi lii ay nouveauté la lii fii rek nga mën a ñëw am ko mënoo dem fenn ba gis ko fa incha allah. lii fii rek nga ko mën a gis. microfine yi gis nga ko bu baax. waaw gis nga lii ki damaa jël euh, genre euh, champagne boole ko ak blanc donc waaw ba pare découper ko finition bi jóge ci kaw yéeg. maa ngi ñëwaat ci microfine pareegu maa ngi yéen de ah lii moom macha allah ah, gis nga somo blanc bi ah? donc fii nag laay tëje su ma la wonee somo blanc bi dama lay won bu buñ ci ñaw benn robb bu yéeme boo xamante ni donc euh, ci microfine dégradé bii lañ ko ñaw gis nga ko nii. donc lii. say ah. xeetu coupe genou bi genou baa may rey man genou ok gis nga ko nii. kon joxel ni ma. maanaam fii la ñuy créer tissu te fii la tur di joge bala mañ sa sañse VIP boo jugee Dominique ci rond bi maanaam di dugg marché Zing boo ko passé à 100 mètres à ta droite après doodaan bi di nga gis totem bi ci kaw tali bi di nga gis ñu bind ci bala mañ sa sañ sa VIP bu fekkee station tali bu mag nga jógee da ngay ñëw ba ci arrêt marché zeng ci arrêt kalandoo yi ak super yi boo wàccee foofu donc boo doxee 20 mètres gauche après jaaykatu ginaar yi di nga gis totem bi ñu bind ci bala mañ sa sañ sa VIP maanaam ci wetu jaaykatu ginaar yi foofu la nekk boo ma bëggee jot nag da may woo ci 77 521. 41 81 77 521 41 81 mbaa nga woote ci 33 834 01 65 33 834 01 65 nga daal di egsi nag dal jàmm ñu sañseel la lu amul fenn mhm. waaw loolu moom man maa ko signé